alhamdulilahi mbokk yi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziyaar di leen baalu àq di leen baal àq di leen ndokkeel ci koor gi di ñaan yàlla yàlla yàlla nangul ñu suñu koor yàlla ko yàlla fulandi ci barke alquranul karim barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokk internet yëpp eh, képp koo xamante ne rek yaa ngi Eh, sivur mindset ñu ngi lay nuyu fépp foo mën a nekk ci kaw suuf di dellu si rek ak yéen ci waxtaan bi nga xam ne eh, ñu ngi fas yéene di ko def ak yéen ci koor gi di ci nafarandoog ak yéen insha allah rabbi di ñaan yàlla yàlla yàlla may ñu koor jàmm eh, yàlla yàlla woyofal koor gi ci rawatina ñi nga xam ne ñoo sant xam naa ne dinañ leen jox benn secret boo xamante ne képp ku koy def yàlla dina la dimbali ci koor euh, mag ñi euh, lépp lu nekk rek dañ ci am ay secret maanaam bés boo jàngee li fi ilaafi xoraysin juróom-ñaari yoon ci bés boobu yàlla dina la dimbali ci xiif da ngay jàng li ilaafi xoraysin ilaafihim rexlata chitaa wa sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وجعلك جروم ناريون غوخ اللهم أطعمني إني جائع اللهم أطعمني إني جائع اللهم أطعمني إني جائع بس بوكو وخي بس بو بو يالا دينا كاتنا تخيف با خيف دلو سنل واو سار بو بري سكري لا تخيف ويرو كور كور بوكو خولي مجنة مجنة خير اكسا نفسه خير اكسا بكن واو خير اكسا بكن موتاخ نين كو واخي وون تي جيل بين يالا دا فاي تاغات دا فا سانت دومو ادم مو وور غير مو مانا سافر بكنم غير مو مانا ليبر روحم اك خولم مو مانا جوكو اك بروموم كوم نيم كو بيغي بن ولي يالا بو ني واخ ابراهيم ابن ادهم Ibrahima ibnu Adham benn wali yàlla ba boo xam ne euh, ku daan wax ay wax yu kawe la woon bés bés dafay dox di dem Màkka benn waay romb ko muy dox ak tànk waa ji war géléemam waa ji euh, gis ko muy dox mu ne ko euh, ilaa ayna yaa Ibrahim mu ne ko fan nga jëm mu ne ko man maa ngi dem aji damay dem aji mu ne ko ah aji ngay def ak tànku neen ana sa ana sa waruwaay mu ne ko ana sa waruwaay ndax màkka sori na lool waaye ibrahima ab adham ibnu adham da ko tontu ne ko lii maraakibun kasiratun mu ne ko man am naa ay waruwaay yu bari isa nazalal musibatu rakibtu markaba sabri maa ngi ay gawar yu bari ndax saay bu yàlla wàccee ci man musiba damay war waruwaayuk muñ damay war gawar muñ moom lay war mu ne ko wa iza nazala ni'matu wa iza rakibtu markaba shukri waaw su su yà su yàlla wàccee ci man xéwal ma daal war gawaruk gawaruk sant waaw gawaruk sant daldi gërëm yàlla mu ne wa iza wa al qada su fekkee eh, ndogal maanaam su fekkee ndogal dafa wàcc si man eh, damay war waruwaayug waruwaayug eh, waruwaayug rida maanaam rakibtu markaba rida ma war waruwaayug d'accord maanaam d'accord ci ni yàlla di eh, tëralee ci nguuram waaw moo tax képp koo xamante ne doo d'accord ci li la ci li yàlla di dogal dangay ngay da ngay sonn ci àdduna waaw te loolu yëpp dafay bokk ci fay bok ci muñ wa motax tax Baay radiyallahu anhu di wax nan anni la ahsudu akhadan wala yaqa'u fi mulkihi shay'an illa wa kuntu radiyan mustarihal baari waaw man duma ma ken duma du ma soxor ak te lepp lo xamantene rek yalla daf ko dogal ci ci ci ci man wala lepp lo xamantene yalla daf ko até rek ma ngi contane ci lolu ma ngi fexal sama xol ci loolu da fay dem sax bay wax nan mu ne euh, li nga xamante ne moom la nit di jooy ak li nga xam ne moom la nit di ree su fekkee ne yàlla mi moom nguur mi moo koy dogal rek man ñaar yëpp ñoo yem ñaar yëpp a yem ci man waaw ñaar yëpp ñoo yem ci man moo tax mu ne ko su fekkee ne yàlla dafa wàccee ci man euh, waru euh, su wàccee ci man dogal rek maa ngi war waruwaayug rida mooy waruwaayug d'accord mu ne ko wa isa daat ni nafsi suma sama bakken wowe nak bis buma sama bakken wowe jàdduloo ma pour def loma ma xamantene ne lu neexul yalla la mune alimtu annama baqiya min al mada aqallu min al ajal waaw su fekke ne sama bakken daf ma wo ci pour ma def lo xamantene neexul sama borom rek bu boobaa damay xamne duma ko wuyu damay xamne ne euh, li dess ci dig bi mo gëna neew ci li nga xamantene ne moo waaw muy Ibrahim Ibrahim ibnu Adham moo tax euh, kun koor daf lay dimbali ci sa bakken daf lay dimbali ci sa bakken yonent sallallahu alayhi wa sallam sax daan na wax naan daan na wax yéen ndaw ñi képp koo xamante ne yàlla may na la loo takkee soxna mu ne na nga takk soxna waaw waaye képp koo xamante ne euh, mat nga takk mat nga takk soxna te mënuloo ko te amoo euh, kàttan walla amoo doole boo ko takkee rek mu ne na ngay saxoo koor da ngay saxoo koor kon xam nga ne koor dina la dimbali pour nga mën a muñ ci sa bopp ndax benn bis am na benn waay boo xamante ne yontu saa salaam da koo laaj ne ko ndax am nga soxna waa ji ne ko déedéet mu ne ko ndax am nga jéebéer bu nekk ci sa kër mu ne ko déedéet mooy jaam jigéen ko ndax am nga koy labat pour koo takk mu ko déedéet mu ko ah la rabbaaniya fi diini mu ko sama diine nag amul làbbewu waaw motax yunus sallallahu alaihi salaam neena kep ko xamantene ci ndaw ñi euh, mënul am jot nga tak soxna te mënul loko mune na ngay saxoo koor kun koor daf lay dimbali ci sa bakken motax euh euh Ñas radiyallahu anhu di wax ne husil uluman arbaan mu na nga ba am ñenti xam-xam awluha irfanu rabbin wasani an ta'rifa ma yuallaqu ala ibadati wa salisu an taarifa irfaanu wa xaali nafsin mune ne na nga fexe ba xam ñeenti xam-xam bàyyi na bi si njëkk mooy nga xam yàlla ñaareel bi nga ba xam li nga xam ne mo aju si wàllu jaamu yalla wàllu sariya sa julli bu yàqoo ni nga koy defaree sa koor mu ne ñetteel bi nag mooy na nga xam mbiru bakken na nga góorgóorlu ba xam mbiru bakken min xaririha min qadriha wa kaydiha wa dasiha waaw ci bon goo xamante ne kenn bon na ko ak rambaaj goo xamante ne kenn rambaaj na ko ak naxaate goo xamante ne kenn mën na koo nax doomu aadama ndax daf lay taaralal loo xamante ne euh, ba kenn moo tax Muhammadul Busiri euh, ca burdu ba mu ne wa raiha fi l amali saawiyatun waaw wa fi l amali saaimatun wa in hiya istaxallatil mara fala tasimi mu ne moom bakken dee ko sàmm waaw nanga mel ni rek nag boo xam ne dafa yor ay nagam euh, pël boo xamante ne baal ma dafa yor ay nagam euh, di leen sàmm di ànd ak ñoom waaye bu fekkee nag yi dañoo dem ba euh, bëgg préféré benn xeetu ñax rek pour di lekk ñax boobu mu ne na leen dàq sax tuxal leen yóbbu leen ci beneen xeetu ñax mu ne kun sa bakken dee ko sàmm dee ko sàmm di ko garde di ko euh, di ko déplacer ci xeetu jaamu yàlla yi su fekkee ne sa bakkan dafa bëgg di préférer di dem euh, jàkka ja rek kese loolu kese la préférer di def mu ne nga tuxal ko yóbbu ko ci beneen xeetu jaamu yàlla su d'accord ci bii nga tuxal ko yóbbu ko ci bii waaye bul ko nangul euh, dara ndax sa bakkan mën na lay def loolu lu baax sax fekk yaa ngi def lu baax li fekk ne bakkan bi moo la koy defloo fekk ne loolu ngistal la kon yàlla yàlla dimbali ñu ba sàmmaloo ñu suñu bakken euh, defal ñu taqwa gi nga xamante ne moom la ñuy séentu ci koor gi nee nañ weeru koor soo ko ooree ba mu jeex sax mën ngaa natt sa bopp xool ba xam euh, koor gi nangu na ndax résultat gi mooy lan mooy taqwa yal nañu ko yàlla defal ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke weeru koor wi kon ñu ngi leen di euh, nuyuwaat beneen yoon di leen ziyaara di leen jox dig daje incha ba ëllëg Euh, di nuyuwaat mbokku internet yëpp euh, seen mbokku la woon seen xarit seen taalibe Oustaz alxaaji Diouf euh, fii ci seen Mind 7 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu